mbokk yi ñoo leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñoo ngi nuyu mbooleem ñi fi teew ci bis bii nga xam ne bisub quraan la waaye di am kontante ak mbégte ci fii nga xam ne fi la réew mi toll tey ndax tey bu njëkk ba boo delloo ay at ci gannaaw xëy na réew mi li fi ëppoon ci ay xew xew-xewi àdduna lay doon waaye léegi fii réew mi toll nga xam ne tey programme yu baree baree bari bi si Qur'an lay doon di xew fu ne ci réew mi muy Dakar muy fu ne xew-xew yoo xam ne daanaka sax xew-xew mënu koo gën a rëy ci ay xumbaay ak i fees waaye ñu dem ba àgg ci jotaayu Qur'an yi léegi ñu ciy dégg ay millions yu baree baree bari kon loolu ñu ngi koy sant borom bi subhanahu wa taala tey am yaakaar bu baax ne kanam rek lay jëm loolu lépp kanam lay jëm ndax loolu ci yëfe adduna lañ ko daan dégg waaye léegi tey alxuraan moo tollu foofu waaye may ñaan mbooloo mi bala ñoo wax dara ci li ñu wax loo ñu jël benn aaya ci quran rek jéem ci jàngat benn aaya ñu jàngataat ci tuuti muy borom bi aaya bi muy wax ne yaa ayyuha alladina amanu هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون mbokk yi aay bi borom bi dañu fee wax benn commerce boo xamee ne benn commerce boo xamee ne nee na commerce la boo xamee ne day tax a mucc ci mbugal mu metti benn commerce yaakaar naa fii ci àdduna kenn ku ne yittewoo nga xam ban commerce mooy commerce boo xam ne boo ci duggee ca sa alal yokk kenn ku ne yaa ngi jéem a xeeñte loo xam ne boo ko doon jaay danga am alal ci amin wu gaaw a gaaw borom bi ñëw wax ñu benn commerce boo xamee ne nee na li muy waral mooy mucc ci min na ali muy mbugal mu metti kon commerce boobu kenn ku ne war ngaa ubbi say nopp xool marché boobu nooy dem nooy def ba dugg ci muy wax ne commerce bi mooy lan tuuminuuna billahi wa rasuli da ngay gëm yàlla ak yonenteem ba noppi waaye nag wa tujaahiduuna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum soo gëmee yàlla ak yonente ba noppi li nga xam ne ñëpp kuy ab julli jàpp nga ne def nga ko mu des nag jël sa alal ak sa bakkan jox ko yàlla borom bi nee na commerce bii day muccal ci mbugal mu metti commerce la boo xam ne damay wax ne bu dee jël sa bakkan jox ko yàlla kooku miinoon nañ ko ci jamono yenent bi nit daana génn këram tàggu soxna yi tàggu njaboot gu sew gi gàddoo jëseem fas yéene dem ca toolu xare ba njaboot gi mu fi bàyyi muy jigéen yi ak soxna yi ñu gëm yàlla gëmin wu toll ne kii dem duñ yaakaar mu dellu si moom miy dem tamit du yaakaar dellu si suy dem day dénkaana li war a dénkaana lépp dem fas yéene dee ci kanamu rasulullahi sallallahu alayhi wa kooku mooy watu jaahiduuna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum kooku mooy joxe sa bakkan fi ko lislaam soxlaa kooku miinoon nañ ko lool ci jamono yonente bi saxaaba yi ñeme woon nañ ko lool nit daana génn këram ci anam gi ak njaboot gu sew gi ñu dem ba ñëw njaboot gi duñ si am lu dul rek anamu ñu ne leen des na sa xare ba du ab yére bu ñu ëndaale néew bi sax duñ ko gis ndax fam faatoo rasulullahi day wax nañ ko suul foofu fam faatoo lañ ko suul njaboot gi mu tàggu woon néew bi sax duñ ko tegaat bët waaye duñ ko jooy ndax booba dañoo gëmoon yàlla daañ jaay seen bakkan di ko jox rasulullahi ak ak yàlla jihaad boobu daanaka jeex na waaye mu des jihaad ci alal jihaad ci alal léegi nag moo fi des kooku moom du jeex ba ilaa yawmi diini jël sa alal jox ko yàlla kooku du jeex mukk léegi nag bi ma gisee mbokk mi jug di laaj léegi li jëm ci daara ji ñun dafa mel ne bu ñu dem ci jataay yu mel nii suñ paas rek la ñuy yóbbu suñ paas xam nga booy dem si jataay bu mel nii yor aw 1000 francs woo xam ne si nga fas yéenee paas fas yéene see dellu nga àgg ñu fay laaj 1000 francs wala 2000 yow xalaatoo ko joxe ñun na bu ñu dem paas la ñuy def suñ poos jeex na lu ñu fa mën a laaj yow doo ko joxe ndax ëndaale woo ko gis nga jataay yu mel nii boo siy dem dangaa war a mel ne ku jëm mars xaaral ma jël xaalis def sama poos ngir bu ma gisee lu bëgg man koo jënd kuy dem mars ku ne da ngay sa poos dara mën naa faa gis lu ma bëgg si sikk sàkk waaye faw nga yóbbaale dara ndax amaana nga gis fa loo bëgg fii nag sikk sàkk wul ne da nga fi fekk commerce boo xam ne tunjiikum min azabin alim dana la muccal ci mbugal mu metti ndax borom bi moo ko wax kon fii moom bi ngay ñëw yow sikk sàkk wul ne da fekk loo xam ne boo si defee sa alal am bénéfice mais est bi ngay ñëw waaj nga ko doo ko waaj booy ñëw boo delloo tamit doone ah feeda la ma fa fekkoon ma jël li ma bàyyi woon ci kër ga yóbbu fa kon mbokk yi faaw ñu waajalaat jihaad bi rasulullahi digle borom bi digle ko muy jihaad ci alal léegi nag boo xoolee alal niñ koy amee dafa yomb trop da ngay gis koo xam ne oto yi day bari kër yi day bari lu ko neex mën na koo am ci àdduna mais doo gis dara dara lu mu taxawal ci lislaam luñ mën a juxuñ ne lee moo ko moom place bee moo ko moom kër gee moo ko moom oto bee moo ko moom waaye daara jee moo ko tabax jàkka jee moo ko tabax daara jee moo yor seen dund loolu moom booy wàññi ci réew mi ñaar ak ñett doo wax ñeent lu néew a néew la kon ñun alal yi est-ce que ñu ngi koy jox yàlla est-ce que ñu ngi ciy jihaad comme ni ko borom bi diglee wa tujaahiduuna fi sabilillahi bi am amwalikum wa anfusikum loolu mooy marché commerce bi nga xam ne dana la musal ci mbugalum mbugal mu metti moom i borom bi wax kon faaw ñu préparé suñu bopp alal yi ñu siy jihaad di ko jox alquran alal yi ñu siy jihaad di ko jox yàlla loolu mooy li nga xam bëggoon naa lu mu gàtt gàtt ma ubbee ko waxtaan wi mbokk yi nañ jihaat ci alal yi nii ñu yore alal yor sa alal muy bari nga ciy dund dund si ba dund juróom-ñaar fukki at xëy feebar ñu yóbbu la hôpital teg la ca lal ya ventilo yi du la upp ñu tegal la pom ji sa wet banaana ba ñu xëy na faatu na kooku dund gu neex la waaye faatu gu neex la bu fekkoonte ne faatu day neex ñu ne faatu na faatu gu neex saxaaba yi dawuñu faatoo noonu dañ daan joxe seen alal gàddu seen jës dem sa toolu xare bi ñu leen di gor ay jës seen deret di tuuru bañ xëy daanu noonu lañ daan faatoo ku ci masaan faat sa kaw laal da am lu la naqari ñun nag tey nit ki day nekk ci këram yor lu dul jeex dund ba xëy ñu yóbbu ko hôpital banteloo yi di ko upp bañ na faat na njaboot gi yuuxu di bëgg a rey seen bopp ndax lii mooy gëm yàlla mbokk yi lii wuute naa gëm yàlla di ko saxaaba yi gëme woon waaye wuute naa rasulullahi ñi mu yar nañ gëme yàlla doon nii kon faaw ñu nafaraat suñ bopp jël alal yi jox ko yàlla loolu rekk ñu fi des gàddu jëes si xeexi moom duutul am yaakaar naa ne kon li fi des mooy alal yi si lañu war a jihaad te borom bi nee na maa kaana allahu li yadara almuminin ala ma antum alay xata yamiisa alxabiisa min altayib nee na nii ñu nekk nii duñu si bàyyi mukk lu dul mu natt ñu ba xam ñi gëm yàlla ak gëmul yàlla natt bi na man fi ma jàpp ne fala mooy ci alal yi képp ku yor sa alal nu mu la neexe muy yokk nu mu la neexe ba nga xëy dugg ci bàmmeel defoo ci dara yow na nga xam ne natt bi yow jéggiwoo ko ndax sa alal moo ci desoon la waroon jihaat te jihaatoo ci kon faaw ñu jëlaat alal yi jox ko barab yu mel nii jox ko daara yi donga yi tumurànke nañ torop te dara weesu wër wëralu ko loolu seetaan gi ñu leen seetaan dañoo seetaan daara bàyyi koog sëriñu daara bi bàyyi kook donga ya nga xam ne dafa mel na sax waajur yi bari boo leen seetoon yóbbu gën a yóbbu seen doom sa daara ji ñu si ak dénkaan rek bëgg a ci xale bi moo ko waral mais est-ce que gëm alxuraan ak jël suñu alal na nga koo jox alxuraan moo tax ñu yóbbu suñu doom yi si daara ji man dama jàpp na bu fekkoon noonu la demee kon war naa feeñ ci alal yi ñu denc waaye néew na ci lool ngeen jéggal ma ci wax jooju bu fekkee ñaxas na loolu daal laa bëggoon ubbee beneen bi may jeexale xam naa sëñ Mor dañ ma see wax loo waaye du yomb ndax jëmm juy dund kooku li gën a gaaw mooy dem toog fa moom mu wax nga dégg ku ko bëgg a xam dem toog fa moom mu wax nga dégg moo ci gën a gaaw ci nga xam te incha allah ñu ngi ñaan yàlla xafisahullah waraaw ma ngi fii ci ndar yàlla na fi yàlla gën a sàmm gën fee yàgg nit la koo xamee ne dundam gépp daf koo jeexale ci alquran ak liggéeyal téere borom bi waaye tim jihaad bi ma doon wax léegi alalam lépp mu jël ko delloo ko yàlla ak alquran sëñ Mor daañu leen wax nañu këram bantu bale bu fi ñëw sax alquran na ko fi indi nee na bantu bale sax boo ko fekkee ci këram xamal ne alquran na ko fi indi mës mës sa xam leneen lu liggéeyal alxuraan moom dafa jóg jëm ci alxuraan waaye dogu te wakiilu ci boromam loolu la borom bi loolu la waxoon yonent bi ne ko fa iza azamta fa tawakkal ala allah ab jullit bu xasee dogu la ci des mooy bàyyeeg boppam yàlla sëñ Mor foofu la dekk dana di nettali ne bokk na ci li ko gën a yee mooy dafa mas a toog si néegu ñaxam bi gis lu mel ne saaru unk mu nekk ca kaw puj ba waaye gis janax ji daw ba àgg ca unk ba fam ko fekk dafa mel ne unk bi moom dafa dafa nga rek janax ji dugg mu lekk nee na moo xam ne ndeke borom bi ni muy tàggate wërsëg kee fam toog jugu fa kii jóg di daw ba àgg ci moom mu wërsëgoo ko lekk ko mu xam ne ndeke fu borom fu nit toog sa wërsëg fekk la fa nee loolu bokk na si li gën a yokk kóolute moom mu mën a toog liggéeyal téere bi te xam ne wërsëg dana ko fa fekk te daanañu faral di dénk ne booy liggéey ci alxuraan jàpp ne doo am dara kon yow dafa mel ne borom bi deful ci alxuraan wërsëg dafa mel ne boobaa sa gëm-gëm foofu lay toll man su ma dee jàngale du ma am dara dafay mel ne gëmoo ne borom bi def na ci téere bi wërsëg waaye tamit gëm nga ne rasulallahi amul woon dara kon rasulallahi xamewuñ ko woon lu dul jàngale dama koy faral di wax fu bari rasulallahi jàngale rekk la daan def ba nee naa bu ñu ko masaan jiiñ leneen bëgg mu nekk leneen wa ma ana illa nadirun mubin lay wax man kët ab jàngalekat dong laa nangoo yam foofu nangu koo weesu illa nadirun mubin kon képp koo xam ne yaa ngi la liggéey ci téere bi na nga gëm ne jàpp nga métier mi gën a rëy ci métier yi te nag gëm moo koy lal na nga gëm ne lépp luy wërsëg borom bi mën na koo tàggat mu fekk la fa nga nekk gëm-gëm yooyu soo ko amul doo mën a jàpp jàppin wu dëgër sëñ Mor nag gëm-gëm boobu la am te noonu la tooge woon noonu tamit la daan yare noonu la daan waxe li ma xam ci moom mooy wax naa ko feebar ki démb ci cees nit la woon koo xamee ne murabbi muallim murshid mooy nekkul woon ab jàngalekat dong waaye amee na amoon na leen lum làmbaa yoo xam ne moo gën a rëy jàngale mooy yar bi nga xam ne moom lay def doomu jullit ñi te moom ab sëriñ ñaarey nekk fi moom mooy ki nga xamee ne yàlla dafa def mu nekk sëriñ ba sëriñ bi noppi ci moom mu dem wala ki nekk sëriñ ba bu yàgg moom mu noppi ci sëriñ bi ñaari ñi ñooy dajee fi sëriñ ki sëriñ bi noppi ci moom mooy ci sëriñ bi yar jàngal ko ba wóolu ko ne ko kaay dem Alaaji Fallu mii ne bokk na si ñi nga xamee ne sëriñ bi moo noppi ci moom mooy yar na ko jàngal ko ba xëy jox ko ni ko ne ko kaay samp ji ki nga xamee ne moo noppi fi sëriñ bi nag mooy moo nekk fi sëriñ bu yàgg mun mu ñaan mu ñaan kàddu ñaan ndigal ñu jox ko mu dem kooku moo noppi fi sëriñ bi waaye sëriñ bi noppeegul fi moom kooku jë fam jëm mën na faa def lu baax lool waaye teewul bu desoon ba sëriñ bi noppi ci moom mooy gën kii nag ku sëriñ bi noppi ci moom la ndax léppam sama kanam la dama faa fekk nekku lu may dégg moo nekkoon suñ jëwriñ yoroon daara ji suñ kanam jiite woon ko dégg naa léegi Amar di wax ne foo ko fekk ci biir xale yi lay nekk gis nga bañ nekkee ndar mbooloo mi ñu bari fii ay gone ay gone ndar na ngi fi matoon nañu ay téeméeri téeméer Alaaji fol li mu daan def mooy daraan ñëpp da leen daan dajaleen ñu toog mu toog ci seen biir di leen garde foofa laa ma sa xamee gone gu ñuy garde kon ni ñuy gardee ak jur mooy daleen daan dajale ñu toog mu toog seen biir kuy dem saw yi da koy tàggu kuy dem ca war a wa da koy tàggu foo jëm da nga koy tàggu xale ku boo fekk xale ni mu bari ab ab ab yëngutu nga leen di garde toog seen biir loo xamee ne booba mbooloom daara ji ak mag ñi matoon nañ ay téeméer waaye amul kenn ku mu ko daan awoon tool te def na ko at yu yàgg nga xam ne bokkoon na si ñi nga xamee ne ca daara ja mooy ñi nga xamee ne mooy ki nga xam ne ñëpp a bëggoon a mel ni mel ndax dañ koo xooloon mu nekkoon koo xam ne mësuñoo xam ci moom muy def lu sëriñ bi tere te kenn ku ne si ñun yaa ngi daan def leneen loo xam ne bëggoo sëriñ bi yëpp waaye moom fi mu daan toog lay toog fu mu bis bu set jamono ju ne ba ngi ci biir xale yi di leen garde kon nii la meloon te sëñ Mor dañu daan wax ne man du ma yar nit ngir mu baax ndax baax yomb na daan ne damay yar nit ngir mu gën daan ne képp koo xam ne noppi naa ci yow foo dem dañ lay jiital waaye duutoo toppee wallaay asim lii la ñu daan wax loolu nag boo fa nekkee ñu la koy wax day mel ne ay léeb ak luppeen waaye tey boo génnee ña nga xamee dafa pare woon ci ñoom kenn ku ne fa nga nekk jëwrin nga fa joo xam ne dañu laa jiital te sëkku woo ko te ñu bañ njiit lañu waaye faaw ñu ne demal ci kanam ndax ña nga nekkal ñëpp dañu gis ne yow kat mat gi nekk ci yow gisuñu ko seen bopp te lii la ñu daan wax ku may yar ku ne du ma la yar ngir nga gën ngir nga baax a baax yomb na ñëpp ko mën a def waaye damay yar nit ngir mu gën alaji fallu mi ne jàpp naa ne bokk na ci si ñi nga xam ne sëñ moor yar na leen bañ gën te ñun xam nañ si loolu fañ nekkoon te jàpp naa ñi mu dëkkal fii tamit xam nañ loolu kon sëñ moor li may wax jàngale gi moom aw tur rek la si waaye yar gi moo ëpp doole tey tamit dañu daan yar ci ak dogu dogu mooy maa ngi fàttaliku benn bis dañ daan def bu ñu xëyee dañ koy nuyu si toog ci kanamam benn bis ñu koy nuyu wër ko nii mu tàmbalee ci wetu ndeyjoor gi di nuyoo di joxe loxo di joxe loxo joxe loxo ba loxo bi agsi ci wetu càmmoñ bi mu ne ñu ndax xam ngeen lu tax bu ma tàmmalee fii di nuyoo du ma dellu si waat nii lu fekk àgguma fee mooy bu tàmbalee di nuyoo ñi ko wër buy jox loxo par kenn ni bu keneen nekkee du delluwaat gannaaw jox ko loxo nee loxo bi bu tàmbalee fii du ko téyewaat li fekk àggul fee mu ne ndax xam ngeen lu ma si jublu ñu ne ko déedéet mu ne ma nit dafa war a ab dogu man du ma dellu gannaaw sëñ war nañu man du dellu gannaaw ne man fi ma xas jëm rek foofu la du ma dellu gannaaw mukk nit dafa war a am dog du dellu gannaaw nga xam ne ñàkk a dellu gannaawam sàmm na ko ba ci loxo bi mu nuyoo sax bu tàmbalee nii du del siwaat te ëggul fee loolu mooy nit ku ab ndogu koo xamee ne li nga xas jëm jëm ba xam ne lii la daray àdduna mënu laa soppi danaa wax ne moom mbaxana mu ñuul mi mu sol sax du soppeeku boo ko xamee ba léegi mbaxana mu ñuul ngay fekk muy sol day wax ne jëmmi col gi mbaxana mu ñuul mi sax du soppeeku doo dem nga fekk beneen mbaxana loolu mooy nit koo xam ne dangaa am dogu xam fi nga jëm xam ne mooy yoon wi dara mënu laa wàññi kon ci gàttal xëy na programme bi xam ma fu mu toll ak li ba wax xam ma nu waxtu wi toll nañ ma jéggal kàddu yi bu fekkee am na lu si njagas ngeen baal ma xam naa li may jeexal rek mooy xale bi ma fekk léegi muy tari muy doomu sëriñ Alaaji Fallu kontaan naa ci moom trop ndax li tax ma kontaan mooy dafa neex trop nga samp daara di jàngale nit ñi ñëw joomi daam jàmmoor yi di tari ñu xëy ñu ne su doom a di yaa ko jàngal mu tari foofu mën nañ fay jàngat lu baree bare bare dañu xam ne kii doomam ak doomi jàmbur yi rek la yemale ndaxte bari na kuy yar lool damay gis ma ne man sama doom mënuma koo jàngal ana lu waral mënta jàngal doomam te mën a jàngal doomi jàmbur mooy coore bi maa teg doomi jàmbur yi kon moom néeg na koo teg doomam loolu lu waar mënumaa doom jàngal sama doom jàngalekat bu koy wax na nga nafaraat sa bopp jàpp ne ku des nga mooy yow am nga ak ñeewant sa doom ba mënoo koo jàngal mënoo koo tegub yar waaye doomi jàmbur moom mën nga koo jàngal mën ngaa dëcc si moom lu ne est-ce que loolu mooy gëm-gëm est-ce que loolu mooy pas-pas bu sell moo tax bi ma fekkee doomam ji tari yëg-yëg boobu laa am kontaan ci loolu ci mu ñëw ñu ne doomam a ngi nii tari na ñu xam ne fi mu teg doomam la teg doomi jàmbur yi loolu nag damay wax ne fa mu jóge woon ci ndar xëy na fa ko jëlee damay wax ne sëñ moor mësuñoo xàmmee ab dongaam ak doomam wax naa ko bëgg de mu feefa Cees lu yàggul dara biñ nekkee ndar moo Yacine a ngi fii toog dañ daan yelwaani te booba doomi jàmbur yi ma ngi mu fat leen di leen jox ab ab dépasse am doomi ay doom yi mu jur ña ngi yelwaani te booba barke bi àgg na fu ne ndax booba ma ngi taxawal jumaam ji juree jee ca ndar booba barke bi àgg na fu lu ko neexoon mën na koo dunde waaye doomam yi mu jur dañ daan yelwaani te mësuma xam ca daara ja benn néeg bu ñu naan njabootam fee la ñuy tëdd loolu dëgg-dëgg mooy nit koo xam ne yàlla rek la ñor te man li ma seetlu mooy ña fa nekkoon da nga xamee ne dañoo tege woon ca yoon wa dëgg-dëgg lan daan diisoog ñoom ak lam daan toogoog ñoom sax dawu ko def ak njabootam loolu mooy nit koo xam ne dem na ba nga xam ne yow wet nga jël teg fa xoole fa yàlla xammeetoo si njaboot ak doom waaye bépp jàngalekat boo xam ne des nga des goo xam ne na nga mën a def ak doomi jàmbur mënoo koo def ak sa doom ku des sa des nga te yi bu ñu amee seetlu waruñu fa bàyyi seen doom ndax ma ngi leen di teg loo xam ne ëttanu koo teg doomam moo tax képp ku yor njaboot na ngay bàyyi xel yarkat yi ndax nañu def sa njaboot ñoom nañu def seen doomam déet kon loolu kontaan na loolu ci xale bi bi ma fekkee muy tari ñu ne ëllëg fa loo ko jur tam jàng ci daara ji waaye li ma gën a kontaan la wax ci moom te xale bi bi mu tari ba mu yàgg muy jooy dafa bëggoon alxuraan bu ñu koy jàng ñu bañ ko yemaleeg waxi nit mu ne bu ngeen koy jàng fa isa xaratumul quraan fabku déereen jooy ku la fekk ngay jàng yi jooy danañ xam ne yow lii ngay jàng kat du waxi nit waxi borom bi la mu ne bu ngeen mënta jooy fata baaku ngeen jooy jooylu xoolal jooyjooylu est-ce que am na ku tëlee jooyjooylu amul benn jullit bu tëlee jooyjooylu kenn tëlewu ko waaye est ña ngi koy def fii ne boo doon jàng jooyjooylu sax ñu ne ah day ngis tal day jooyjooylu te rasulullahi moo ne fatabaaku bu ngeen mënta jooyjooylu jooyjooylu leen mooy alxuraan boo koy jàng soo mënta jooy jooy jooy la bañ xam ne yow waxoo waxi nit waxi borom bi ngay wax rasulullah nii la ko waxe bu ngeen mënta jooy jooy jooy te jooy jooy lu amul benn jullit bu ko tële kon ngeen jégal ma ci kàddu yi wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Murtala Fall ak Cheikh Diop ak Moustapha Sy jërëjëf ana Moustapha Sy la ana Cheikh Diop ana Cheikh Diop si Moustapha man muraadu bi sujuudi tilaawa lan la jublu ci lan la jublu ci sujuudi suñu talaa mooy yàlla ñoo suñu lu waay bay naa waa baax bees yaay boo xam daal suñu suñu boo ngi suñu dañ tuddee suñu talaa waaw léegi ñaata suñu ko ci ñaari suyut ci Alxuraan barab ñu suyootal ci Alxuraan fukk la ak benn ci mazhab Maalik diggante suratul xujuraat manaas am na ay sujoot waaye sujoot yooyu yëpp kenn ko sujootal ndax bëgg naa ci Alxuraan barab ñu suyootal ci Alxuraan fukk la ak benn moo tax woykat bi jiñ na ko ci bay di baabu sujuudi zikri inda asra qabla al-mufassili wa huwa asra wa huwa al-azaa'imu fa fil araafi nudiba an yaqra ba'da raafi salaati qabla ar-rukuu'i abada wa ra'di wa la saali wa na'li lada ma yu'maruuna wa aqsuhan isra wa maryama fi wa bukiyan asra wal hajju ma yaf'alu ma yasa'u fi فرقان لدى نفورا اقتفيه وأدعو للعسي العظيم سجده يستكبرون وأناب عنده في سهر لحسن مآب تعبدون في فصل الله وهم لا يسمون ما شاء الله loolu lenn léegi mu gën a yan mooy sarti sujud yan mooy teye ci sujud gi jàpp maa ngi sujud yan mooy sarti ne sart yi kii si lu moo tax ñu si jot am nay sart na fekk na laab dina jël lu penk na mu rongo te na laab sobe na laab sobe kii dig dig afaar digal na ko mosu yóot ci ay sart waaye am na ñaari sart yoo xam ne ci kiy jàng ñaari sart mooy kiy jàng na mat na jàng ngir tax ngir yàlla tax sart yi moom ci kiy déglu bis jëkk mooy moom na jàng na jàng moom na toog jàng ate alxuraan wala ate alxuraan alquran waaw léegi am na ñu ne am na ñu dañ ko sopp waaye lu manaam du farat ndax Seydina Omar Seydina Omar radiyallahu anhu ba mu nekk ci xilaafa gi am na bis boo xam ne doon jàng alxuraan ba si ci aaya boo xam ne daa am sujjóot bam mu sujjóotee mbooloo mépp ànd moom sujjóot ba benn bis ñëwaatee ba muy jàng arxuraan ba egg si aay boo xam ne daa am sujjóot ba muy préparé mbooloo mi di préparé mu jaaji mu wax leen dal leen li ñuy def du farata yàlla farataal ak suñu kon lii dama leen sujjóot sujjóot tilaawa du farata benn dañ ko sopp waa bu mu nekk suñu muy julli say koo xam ne dana julli ba jàng aaya boo xam ne sujjóot kon sunnaal ne ci moom mu sujjóot moo xam julli faratara moo xam julli naafila waaye suñ nañ nag ngay julli farata di tey di jàng aaya boo xam daa sujjóot di ko sujjóotal ne na alxuraan da kaa wax ne yàlla daa wax ne wa ida quri'a alayhim qur'aan laa yasjuduun dafa ŋaañi gaa yi xamee ne bi ñuy jàng alxuraan bi àgg aay ba xam daam sujjóot duñ ko kon lii day wane di boo ñu jàng alxuraan ba àgg aay ba xam daam sujjóot alxuraan ne kon neen ko sujjóotal kon mbokk yi jërë ngeen jëf lii mooy jeexal ci loolu ay laaj ci téere bi ñuy wax Risaala ci téere la ñu moom kon bu ay tool tool bii di jàng téere bi ñu am kon loolu xel day dalal ci daara ji daara xam-xam kon bi jazakumullah wax naa xel ñàll صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه وسلم تسليما asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaare te di leen ndokkeel ci weeru koor wu tedd wi di leen ndokkeel ci jataay bu tedd bi ak ci alquran ju tedd jii di sant yàlla lu bari bim ñu mayee ñu fekke ko ay at fekkewaat ko ren ci wér ak ci tal jëmm yi nga xam ne ñoom lañ fi dajaloon daawit yàlla dogal na ñu fekkaat leen fi di ñaan loolu gën a yàgg di ñaan suñu boroom ay xéewalam dollee ko ci nun ay mayam dollee ko ci nun ñu ngi nuyu bu baax suñu baay sëriñ Gueye mi nga xam ne mooy kilifa jataay bi mooy kilifa ak barab bi di ko ziyaare bu baax di ko ñaanal yàlla may ko wér gu yokk ak fan wu gudd ndax gis ko suñu mbégte la lool buñ dikkee ci jataay bi fekk ko fi rek suñu xol sedd di itam mbokk yi Daaru Gay yépp ñaan suñu boroom barke bi mu defaloon bàyyi ak maam yi mu defal leen ko defal ñu ko ci barkab sëriñ Touba ci barkab weeru koor ñu ngi nuyu itam bokki dong yi nga xam ne ñooy waa daara ji góor ñi ak jigéen ñi di nuyu jàngalekat yi di ci jiital alxaaji lu Gay ak rakkam di leen ñaanal yàlla yokku leen kàttan yokku leen wér bi liggéey bi nga xam ne suñu borom moo leen ko dénk ngeen dénk ko te yóbbu ko foo xam ne yàlla dina ci kontaan yonentam bi kontaan ci Sëriñ Tuubaa kontaan ci suñu maam it maam Baara Gay kontaan ci di sant it suñu bokk dongo yi nga xam ne ñoo bokkoon nekk daaray Ndar te ñu fekk leen fi ci jotaay bi te yàgg leen fee fekk ñuy ñëw xam ne nee ko ñoo lim ndax dañ fee xaw a takk lool kon ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñépp di leen xamal ne sëriñ Mor de nuyu na leen sëriñ Mor nga leen di nuyu bu baax di teewlu it bis bi bu baax ci ab xolam ak ci am xelam ndax ku mel ne Alaaji Fàllu Gay ku sori la ci sëriñ Moor rakkam ji it ku sori la ci sëriñ Moor ndax ñoom ñaar te Alaaji Fàllu jiitu ko fa dañ fa yàgg lool bu sëriñ mooy ba sëriñ Moor dafa leen a bàyyi xel lool sëriñ Moor seen baay la waaye nag seen sëriñ la ndax suñu way juróowee nga xam ne moom lañ daan wax sëriñ Abdou sëriñ Mor daf koo doyoon lool ci njabootam ba tax mu yëkkati njabootam gépp jox sëñ Mor sëñ Mor it ah, lam ca man ci jëf ci wàllu jàngal leen ak yar leen def na ko toog na fa ab diir bu yàgg tariloo fa ay nit yu bari ba lenn ci bokk yi sax doon nañ yaakaar ne xale bi dafa dof wala xale bi dafa bëggul dara moo tax nanguwul a génn daara ci fekk na boobu sëriñ bi moo noppeegul woon ci moom rek bu sëriñ bi noppee ci moom nag moo tax mu jox ko ndigal boole ko magam ji di Aliou Guèye ne ko Aliou Guèye dama bëgg xale bi nga jàpp ko bu baax te jàppale ko ndax liggéeyukaay la day boo xam ne ku ko jàppale dina liggéey loolu ba mu koy wax maa ngi toog kon alaaji fàllu bu dikkee ci barab bi ci ndigal samp daara ji ci ndigal di liggéey ci ndigal kon war nañoo mën a rafet njort ci ne suñu borom dana ko jàpp dana ko jàppale kon alaaji fàllu yal na la yàlla dimbale yal na la yàlla taxawu yàgg sa rakk Amar Gaye ak képp koo xam ne kii mu ngi leen di jàppale ak képp koo xam ne am na yéene jàppale leen li ñuy faral di wax nag mooy daara daara yëpp a yam ndax ndax daara joo fa dem alquranul karim téere bi yàlla bi lañ fay jàng kon daara jii ak daara jeneen ñoo yam képp ndax téere bi yàlla bi lañ fay jàng xëy na nag jàngalekat ya mën nañoo wuute waaye ndongo yi it mën nañoo wuute ñay jàngulu it di ay wéyjur mën nañoo wuute waaye téere bi ñuy jàng moom benn bi la bi ñuy jàng fii ci Sénégal ba ñuy jàng ca Madinatul Munawwara di ko jàng ca Bagdad di ko jàng ca Jazair di ko jàng ca Iran benn téere bi la muy alquranul karim di wax yàlla yoo xam ne mi ngi bàyyi ko ci borom bi borom bi jànguloo ko jaam ñi jàppuloo ko jaam ñi daf koo jàngaloo jaam ñi jàppuloo ko it jaam ñi kon jaam ñi buñ ko jàngut jàppuñ ko kon tooñ nañ seen bopp waaye nag wedd nañ ndigalu borom bi subhanahu wa taala kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarak ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم kon téere bi borom bi daf ñu ko jàngaloo daf ñu ko jàppaloo kon nañ ko jàng waaye nag nañ ko jàpp niñ koy jàppe mooy nañ jàppale ñi koy jàng ak ñi koy jàngale ndax loolu moo ñu may taxe fi dunya moo ñu may texe it fi alaaxira moo ñu may jàmmi àdduna waaye moo ñu may jàmmi alaaxira moo ñuy may itam nag sutura soo xam ne danañ ko sàngoo fii ci àdduna bu alaaxira it ñu sàngoo kon jàngalekat yi nañ jàng bu baax nañ jàngale bu baax waaye nag nañ ci boole nag ragal yàlla ci ñi ñuy jàngal li nga xam ne ñun day xam nañ ko ci sëriñ Mor ku ragaloon yàlla la ci liggéeyu jàngale alquran ndax ndongo lu ndaw lu wéet ak yow nga xam ne amul kàttan amul xel ñu jox la ko nga wéet ak moom ci biir daara ji boo ragalul yàlla mën ngaa def ci moom loo xam ne bokkul ak la way jur wa bëggoon nga def ko ci waaye mën nga koo defit loo xam ne nii way juram bëggul nga def ko ko moo tax ñuy faral di wax ne ku am sa doom ku ne bëgg ñu yar ko bëgg ñu jàngal ko nang ko tànnal ab yarkat ak jàngalekat du képp ku ubbi daara dajale mbooloo rek yeyoo ñu jox ko ndongo mu jàngal ko nit ki da ko war a nattu ci jikkoom da ko war a nattu ci yaram da ko war a nattu ci xamam xoolit kii fuñ ko yare ak fuñ maanaam maanaam fan la bàyyi ko nga doon a xam ne kii day mat naa jox sa doom nga jox ko sa doom boo ko deful mën nga ko jox sa doom bu ëllëgee nga gis sa doom loo xam ne nii du la neex wala nga gis sa doom loo xam ne nii bokkul ak yow la nga bëggoon ndax jàng dëgg la xam dëgg la waaye nag yar moo jiitu wax nañ ne sëriñ bu mag bi daana wax ne bu alxuraan yi nare ñaar yëpp na ànd bu benn naree yi na alquran manam na njàng mi manqué waaye yar bi moom na mat kon way jur yi nañuy tànn ñi ñuy jox seen njaboot man day alaaji fàllu mi doy na ma ma yëkkati sama njaboot jox ko mu jàngalal ma ko nañu ragal yàlla bu baax nag ci xale yi ñuy yore di leen jàngal ndax ab masuliya la responsabilité la boo xam ne nii ëllëg suñu borom danañu ko laaj ndax xale bi dey boo ko tànnalul ku ko jàngal njàng mu wér yar ko yar bu wér bu ëllëgee tooñ nga ko te bu ngeen demee ci seen kanamu borom yow ak moom way jur bi da ngeen ko layoo ndax yaa ko tànnalul woon ku ko jàngal ak ku ko yar waaye way jur it nag nañu ragal yàlla ci seen diggante ak yor seeni doom ndax jox nga ma sa doom sa doom ji nga xam ne tey bu nekkoon ci say loxo danga ko jox mu lekk danga ko jox mu naan danga ko setal bu feebaree nga faj ko bu raflee nga wodd ko kooku boo ko yëkkatee jox ko nit bu mu tax nga yaakaar na loolee nga xam ne moo la waroon ci moom dafa laa wàcc déedéet boobee sax la la gën a war ragal yàlla nag ci jàngalekat bi bokk na ca li nga diggaaleeg moom nga di ko matal boo ko mënta dolli it na nga ko matal di jox di ko joxe ba mu mat te di ko jox it ca waxtu wa ndax boo ko deful ah sëriñ daara bi mën naa loru sa doom mën naa loru te li nga xam ne moom ngay sàkku jiit boo watuwul dana xaw am sooxe waaye man li ma seetlu mooy sëriñ daara yi day li ëpp ci ñoom danañu matal seenub liggéey ba mat sëkk waaye li ëpp ci way juri ñoom dañuy manqué la lool ndax sëriñ daara boo xam ne moom doo ko génn muy dox doo ko gis muy dox jëm fenn bu xëyee mi ngi ci daara ji fa lay yendu fa lay fanaan di xëy ci sa doom guddi ak bëccëg tàngoor ak sedd di xëy ci xale bi nga xam ne àddunaam lépp talul dara pour xale bi wattu alxuraan pour xale bi yaru nga xam ne yow la nga war a def moom moo la koy defal kooku dëgg dëgg li nga sëq ak moom war nga koo matal ba mat sëkk bu fekkee ne mënoo koo dolli it na mat kon may gën a soññ waajur yi ñu gën a toppatoo daara ji waaye gën a toppatoo it njabootuk daara ji rawatina seeni doom ndax alquran kat góor daf ko war a jàng jigéen daf ko war a jàng bu fekkee na nga xam ne yow mënoo koo jàng nag wala mënoo koo jàngale kee nga xam ne mën na laa defal loolu wuutu la ci kooku war nga koo taxaw war nga koo respecté bu baax waaye jàngalekat yi damay faral di wax ne nañ leen di xamal alquran waaye nañ leen di xamal xam-xam li nga xam nan la ñuy jaamu seen borom waaye nag nañ leen di xamalit lan mooy ak bokk di leen yar ñu bëgg lool seeni way jur bëgg lool seeni mbokk ak nan lañuy bëggee way jur ak nan lañuy bëggee ak mbokk ndax jàngale ñaar la am na loo xam da ngay ubbi téere di ko ko wan naan ko waxal nangam muy wax nangam waaye am na loo xam ne nii yow ci sa bopp aw melokaan la wuy nekk ci yow mu dala xool di ko gis am loo xam ne danga koy wax it mu di ko dégg ndax xam-xam kenn du jàng lépp ci téere am na ci loo xam ne nii dañ koy xool xam ko am na ci loo xam dañ koy wax nga dégg moo tax jàngalekat moom bala muy mën a nekk ab jàngalekat war naa jaar ci ay barab war nañ koo jaarale it ci ay barab kon am nañ mbégte lool nag ci bis bii nga xam ne moom lañ tuddee sëñ Mor li ci sëriñ Modou Gueye wax doy na sëkk ku ko joxoon rajo ñaari waxtu ñetti waxtu mën na cee wax wax joo xam ne nii ah, yaakaar naa ne dana doy a dégg ñi fi nekk it nga xam ne jaar nañ ci daara ja koo ci joxoon ko ne ko waxalit li ne ko wax rek lay wax ndax ñoom ñëpp ci daara ja lañ yaroo te ñoom ñëpp it xam nañ sëñ moor ñoom ñëpp gis nañ ko sëñ Mor man xam naa bu wér na jàngalekat la waaye nag xam naa bu wér na mu rabbi la waaye xam naa bu bu wér na mursid la ci koo xam ne kii moom àdduna waxu ci dara jëmul ci àdduna jëmewul kenn ci àdduna moom lu baax la xam yàlla la xam ak yonente bi ak nit ñu baax ñi ku mel na sëriñ Tuubaa sëriñ sëriñ Moor du wax lu dul lu jëm ci yàlla sëriñ Moor du jëf lu dul lu jëm ci yàlla sëriñ Moor xamut lu dul yàlla loo ko mën a wax ci mbirum àddina loola jaaxal na ko moom xamul la ne te ñii nga xam ne yoroon nañ ci keppaaram ñoom ñëpp doy nañ ci seer te sëriñ Moor nekkul koo xam ne ku lay wax boppam la abadan doo dégg mukk mu ne la mën a doo dégg mukk maanaam mu joxañ la boppam du la wax mukk boppam abadan waaye yàlla mi nga xam ne ñépp ko bokk dong la lay wax moom dong it la lay wan nee na man jomb na maa wéet ak ab dongo di ko wax sama bopp wala di ko wan sama bopp ndax xam naa ne yàlla dox na si ma ndax yàlla mi ngi may seede te it lu ma ko wax yàlla xam na ko lu ma ko defe kon yàlla xam na ko moo tax damay ragal yàlla ci dongo yi sëriñ Mor ku ragal yàlla ci dongo yi la loolu waral na da nga gis xale boo xam ne nii daf lay wóor ne kii baayam tijaan la baayam murit la koo koy ñëw di ko sujjootal mën a ko déedéet ndax yow sa waajur tijaan la kon bul ma sujjootal doonal li nga doon te jàng alxuraan te ñibbi loolu kenn ku nekk ci nit ñi dégg na sëñ Mor wax ko ab donc nee na man ragal naa yàlla lool nit jox ma doomam may def ci ma maanaam may def ci moom leneen lu bokkul ak li ma def la woon ci moom xale boo xam ne nii day yore xasida ñëw nuyu ko mu ne ko ah yow doo tijaan mu ne ko ah kay mu ne ko déedéet yow xasida moom bul ko laalati ndax loolu indiwu la fi yow jàng alxuraan moo la fi indi looy laal ci xasida wala nga di ko jàng na nga xaar ba dem ba ci sa baay boo koy jàng nga jàng ko ci kanamam boo koy téye nga téye ko ci kanamam sëñ Mor nii la daan dunde sëñ Mor mësta woo boppam mukk mësta woo donc mukk mu jëm ci boppam sëñ Mor mësta woo boppam mukk maanaam mu jëm ci yoonu murit te mu xam ne yow mii doo ab murit sëriñ Tuubaa bañ maanaam maanaam moom maanaam maanaam sëñ Mor maandute gi ëpp na maanaam maandute tege bu doon dab dañ naan day tuuru ragal yàlla rek sëriñ Mor tere na ba tey maanaam ñuy def ay daayira ci biir daara ji ngir nee na daara ji a fi nekk murit ak tiijaan ak xaadir ak laayeen ñëpp a fi nekk alquran moo leen fi indi moo leen fi boole kon di leen jàng alquran rek ak téere yi nga xam ne moom ñëpp ko bokk loolu ak ragal yàlla la bari na ñoo xam ne tey boo wéetoon nag ñoom seen bopp lañ lay wan ak lañ nekk mais sëñ moor moom du kooku ba tax na sax am ñoo xam dem nañ ba yaakaar ne sëñ Mor xanaa du ab taalibe ndax ñoom liñ meen ci ab taalibe mooy ab taalibe dafay woote jëme ci taalibe ab murit dafay woote jëme ci murit mais sëñ moor boo ko seetee melokaanam dafa muy niru melokaanu sëriñ Ahmad Saxiir Lo sëriñ Ahmad Saxiir la doon na li mu doon ba noppi te kenn du ko xam ci ay waxam kenn du ko xam ci ay jëfam ñëpp la boole boot ñëpp la boole yore ñëpp la boole defar moo tax ñëpp a fay dem ab murabbi al murabbi fii nga xam ne mi nga xàmmee diggante kii ak kee dese na bala ngaa mën a nekk murabbi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg da doomu aadama yépp sa doom doomi jàmbur kii nga xam ne lii la ak kii nga xam ne lii la ñoom ñëpp nga yemale ndax itam nag suñu borom moom teqalewul nag jaam ñi jaam ñi ñoo teqali seen bopp mais yàlla teqalewul jaam ñi lii mooy ak ragal yàlla lii mooy melokaanu sëñ Mor lii may wax nag yaakaar naa ne dong yii fi nekkoon jaar ci daara ji koo ko ci koo ci wow ne ko waatal lii dana ko waat ndax xam na ne loolu mu am waaw kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax di ñaan yàlla suñu boroom jotaay yu mel nii yàlla na bari yàlla na yaatu ñun day xam nañ bu wér ne alquran moom am na ndam fii ci Sénégal ngi day gëm nañ ne mag ñi seen coono ba nga xam ne moom lañ daan sonn di ko liggéeyal yàlla coono boobu moom suñu borom nangu na ko moom ndax Sénégal foo dem alquran jaa ngay jëpp gone yaa ngi tari alquran góor ñi ak jigéen ñi ruq boo dem ña koy tàntal alquran di ko tàntal tey maanaam kenn ku nekk yëg na ne alquran mi ngi ci réew mi yëg na ne alquran mi ngi ci njabootu réew mi te kat liggéey bi yëpp liggéeyu mag ña la nag mag ña kat mag ña kat garab gi nga xam ne moo meññ tey jii mag ñee ko fi suuxatoon kon mag ñi nañ xam seenu yoon di fàttaliku seeni yoon di xool seeni jeexit te yu bees yeeg yu bees yi nga xam ne ay yu bees beesaan la ñu bañ cee am soxla seet li nga xam ne ñun moom la ñu mag ñi jàngaloon xamaloon ñu ko ñu jàpp ko bu dëgër fas yéene ko téye ndax loolu day moo ñuy may ndam fii moo ñuy may ndam ndam ëllëg moo ñu mooy maanaam moo ñuy dimbale tey moo ñuy dimbale ëllëg fu Sénégal fu mu bëgg a egg loolu moo ko fa yóbbu li nga wax mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu wolof dafay wax ni lu amul seede baaxul li sëriñ bi wax ci way juróom wu tedd bi moom lañuy ñuy seede pour wax ni li mu wax dëgg bu wér man mii way juróom moo ma jàngal moo ma yar toog naa ci kanamam xëy nuy si ko jox ko loxo su ko mu ma siini jaan bul ma su jootati ndax yow tijaan nga sa baay tiijaan la kon bu nu ma sa jootati li ma ko sëriñ bi wax sax neexuma ndax li tax neexuma comme falaa yaroo ànd ak samay xarit yépp man li ma xam rek laa xam waaye maandu teg sëriñ bi moo tax moom mu xamal la loolu te fekk yow boobu xale bu tuuti nga kon lii mu wax lu amul seede baaxul sëriñ Mor jikko boobu la am di defar xam ni dafa am responsabilité pour defar jullit ñëpp mu yar jullit ñëpp defar jullit ñëpp sëriñ bi li nga wax dëgg wér la yal na yàlla yàggal taxawaayam te yéen ñii itam jikkoom ngeen yor yal na leen yàlla yàggal. kon mbokk yi foofu la ñu yemale kàddu yi di leen baalu àq bu baax di leen baalu àq di ñaan suñu borom yal nañu yàlla dimbale ci biir ak ci bitte waaye feebar yi suñu borom may leen wér. borom njàqare yi suñu borom dindi leen seen i njàqare borom borom yitte zahire yu baatin yëpp suñu borom fajal leen ko bi jaahi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi barakati alquran alkarim wa bi jalali shahri ramadan almuazzam allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim salaamullahi alaykum ayuha almushahiduna alkiram mutaabiunana fi kulli makan fi qanaatikum almuhabbaba walmufaddalati ladaykum qanaati alislam في برنامجكم هذا برنامج منبر الثقافة أنتم تقترحونه لنا ونرحب اليوم في هذا البرنامج ضيفين كريمين الأستاذ مصطفى لو السلام عليكم أيها الأستاذ وعليكم السلام أحييك أيها الصحفي الكريم وأحيي كذلك الأخ الشيخ خلدو ولا أنسى كذلك جميع المشاهدين الكرام ولا أنسى كذلك أن أبلغ كل تحية لمشاهدي ومتابعي قناتكم المفضلة والمحببة التي اختلت مكانا مرموقا بقدر حرية الرأي والتعظيم كما تعرفون أن هذا الأستاذ لا يحتاج إلى تعريف لأنه معروف في أنحاء البلاد نظرا لإنجازاته القيمة ومشروعاته التي قام بها والضيف الآخر الشيخ حسن خالد الجوب مرحبا بك أيها الشيخ الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحييك أيها الأخ الكريم وأحيي كذلك جميع مشاهدي قناة الإسلام كما أنني أحيي زميلي وأستاذي يوسف فالور الذي كنت معه في جامعة الجامعة في تونس ودخلت معه كذلك في رحلات دينية وفعاليات ثقافية وآخر فعاليات وآخر فعالياتي التي التقيت معه مريم تركي وكانت مشاركته شيخ جدا لا نطيل عليكم أن الشيخ معروف وخصوصا في مدينة طوبى المحروسة لأنه تربى وترعرع في أوساط هذه البقاع المقدسة ومع ذلك كانت له مدرسة قرآنية علمية ثقافية تنال اهتماما بالغا من قبل المجتمع الإقليمي كما في المستوى التعليمي كما أنه تحت كما أنها تحتل مكانا مرموقا لدى المدارس القرآنية في مدينة توبة بشكل خاص وفي السنغال بشكل عام إذ أنها تعد هندسة وصل بين التراث والتجديد والأصالة والمعاصرة أيها الإخوة مشاهدونا الكرام متابعوننا متابعون قناة الإسلام اليوم نرحب في هذا الاستديو هذين الضيفين الكريمين واللذان سيتحدثان معنا عن نشأة الشبكات الإلكترونية أو الشبكات التواصلية ما يسمى بفيسبوك وعلاقتها بحياة الإنسان وكشيء لا بديل عنها في المجتمع قبل الدخول إلى البرنامج نستمع التقرير التالي الذي أعده لنا مراسلنا الأستاذ سعيد جاي نبدأ مباشرة مع الأستاذ محمود مصطفى لو الأستاذ الناس يعيشون في أماكن شاشعة وبلدان متباعدة لكن بسبب هذه الشبكات الإلكترونية أصبح العالم الآن كقرية صغيرة واحدة ما رؤيتك في ذلك؟ مناسبتنا الاجتماعية قد سمعت العالم وانتشر في الحياة المعمولة بشكل واسع فأصبحت تلك المسافات الشاسعة والبلدان المتباعدة بمنزلة قرية صغيرة واحدة يتواصل أبناؤها بعضهم ببعض وتترابط فيما بينهم علاقات أخوية بغض النظر عن مختلف ثقافاتهم ولغاتهم ووجهة نظرهم لأن ما يجمعهم في هذه الدائرة هو تبادل آراء والأفكار مما يؤدي إلى تعارف بين ثقافات الشعوب وتخاليدها وتنمية معارفهم وتسقيق عقولهم وتحابب فيما بينهم زميلكم الأستاذ يبدو لي أن الفكرة قد وصلت لأن ما يحدث في أمريكا أو في فرنسا أو في أي بلد آخر يمكن أن نعرفها كمشاهد في نفس الوقت طيب الشيخ خادم جوب بعض الناس يكفون أيديهم عن استخدام هذه الشبكات التواصلية نظرا لما فيها من إيجابيات المحضة كيف تعلق كيف تعلق أيها الشيخ الكريم إذا كان كل شيء في الكون له سلبيات وإيجابيات فإن هذه السبكات يا سيدي لا أضرارها ومنافعها لكن الإنسان بنعمة العقل والعلم يمكنه أخذ جميع الأمور ووضعها في ميزان ومعايير سريعة وذلك يحصل بتناول الإيجابيات واستخدامها رسما وروحيا وتحاسي السلبيات ورميها زينا وجريا ولا ينبغي الكف والحذر عن استخدامها نظرا لأن فيها أضرار ومفاسد بدون الاعتبار والتطلع إلى ما فيها من مصالح ومنافع يستطيع بها الإنسان إصلاح حياته الدنيوية والأخروية بعد ما سمعت ما قاله الشيخ عقل ما سمعنا عمله الشيخ خالد جوب الشيخ صرح بأن هذه الشبكة لها إيجابيات وسلبيات أنت كأستاذ وكمدرس وكعالم أيضا لديك الشبكة الإلكترونية أو بعبارة أخرى الشبكة التواصلية ما يسمى بالفيسبوك نحن لا نكف أيدينا عن استخدام هذه الشبكات نظرا لأن فيها مفاسد وأضرار كما أسأل إليه الأخ الشيخ المجوب نحن نستخدمها يوميا أو أسبوعيا ونحاول بكل جدية أن نتحاشى السلبيات لهذه الشبكات يوميا أو أسبوعيا هل وجدت فيها ما يمكن القول بأن فيها إيجابيات؟ أيها الأخ الكريم إن السبكة الإلكترونية أو التواصلية يمكن من خلالها إقامة علاقات جديدة أخوية مع الأعداء المتصفحين تشترك معهم أو بعضهم نفس الاهتمامات والهوايا فيتبادل من خلالها بعض القضايا أو بعض الحوادث المتعلقة بالمجتمع الذي أنت تعيش في فانه كما في بعض حالات نرى بعض المثقفين المنضمين بعض المثقفين المنضمين إلى هذه الشبكات التواصلية إلى هذه الشبكات التواصلية يدعون مسألة فقهية أو مسألة علمية دقيقتين أو مسألة علمية فلكل منهم سباحة والرجوع إلى المصادر لوجود حر ولا شك أن ذلك فيه فوائد جميل